waa xam nga réew tam soo ko yoree nit ku nekk li sa comme agriculture par exemple dañ ko war a favoriser ñi nga xam ne dañuy bay ñu defal leen ay subvention jàppale leen ñuy mën a bay toog ci seen dëkk di am lu ñuy am ñi nga xam ne dañuy napp ñu jàppale leen parce que réew li koy doxal mooy ressources yi nga am ñun yàlla may na ñu am nañ nap yàlla may nañ am nañ mbay mais suñu dimbaliwul ñi koy def jël seen ay gaal interdit leen fa ñuy nappee duñ fa napp loolu indi chômage yooyu yëpp mën na waral gaal yi doon napp bu ñu nappatul moo tax ñu koy jël di ci yóbbu ay nit di ci def ay trafic ak yooyu moo tax il faut ñu gestu leen jàppale leen pour que ñoom ñu mën a toog parce que avant bi ñuy liggéey normalement di ci am seen euh, sutura demuñu si gaal yi di yóbbu ay nit à l'étranger donc loolu tam il faut ñu wutal ko pexe daal wutal ko solution